présenté aussi. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay man la Serigne Mbengue nekk fii ci atelier bi tôlier mais dañoo yeewoo ak naqar ak tiis parce que dama tëdd ba trois heures du matin ñu woo ma ne ma atelier bi mi ngi tàkk ma ne ah ñu ne ma waaw mu nekk tàkk bu metti ma ni ah loolu doy na waar rek ñu ne ma waaw. ma woote fii ci dëkkandoo yi ñu ne ma atelier bi de dara desu fi ci laa sacrifier sama bopp man Pikine laa dëkk mais maa ngi fa jóge trois heures du matin parce que boobu bañu ma woon dara parce que yore ay ay alalu jàmbur ak sa alal muy yàqu dafa xaw a doy waar loolu loolu loolu tax ma jóge fa trois heures du matin ñëw mais bi ma ñëwee fekk naa fi sapeur mais bi ma dikkee tamit fekk naa atelier bi jeex fii dara génne wuñ ko fi parce que fii dafa bëri ñu fi nekk di liggéey man tôlier laay liggéey kii mécanicien la kii nekk sama ginnaaw bobineur la euh, ak menuisier yi encore te menuisier yi ñoom biir atelier bi ñoom ñoo ko moom mais ñun dañ fay nekk noog ñoom mais suñu matériel lépp ci biir atelier bi lañ koy dugal suñu matériel lépp ci biir atelier bi lañ koy dugal sama générateur bi may soudé sama butéelu air sama caisse à lépp fi laa koy dugal bi ma dikkee ma fekk mu jeex tàkk dara desu fi ma ne ah lii de moom doy nawaar waar trop mais fi mu nekk nii ñun lii suñu problème mooy lu taal ak lépp lu ko lakk nekk na lu ñu jaaxal trop trop trop trop ba ndëgëni si mënuñu laa wax ne lii moo ko taal te il paraît que ne man maa ngi dégg fii ñu ne affaire bi mi ngi commencé vingt trois heures ba trois heures du matin affaire bi nag moom ay trois heures du matin ci la gën a aggravé ci la jeex tàkk man bi may egsi fii quatre heures moyen mais bu ñëwee fekk ma fi dara fi atelier bi kenn génnewu fi dara am na benn machine boo xamante ne si bu nekk fii machine bu bees tàq la bi ko paa bi jëndee ba léegi monté ko pour liggéey ci te machines yi day jar ay 4 millions et quelque te lu mat 5 machine ñu ngi fii ci biir xam ne kon loolu métti na man maa ngi ni yàqule naa sama ut yi nga xamante ni si moom laay liggéeyee ak sama oto boo xamante ni si mi ngi nee ma fee moom it dara desul ci oto bi xam nga loolu dafa doy waar te fi mu nekk nii ñun fi nekk nii lenn mooy suñu problème mooy que ni lañ soxla. ku ñu dimbali ngir yàlla te yàlla rek tax te nag dañuy wax ak Macky Sall mu dimbali ñu ak Marème Faye Sall parce que ñoom ñoo fi sunu njiit te comme ñun ay doomi réew mi lañ te ñu lenn lu dul lu ñu jël yóbbu ci sunu njaboot ñu xëy ni nga xamante ne si ci lañ doon suturloo di ko dimbalee sunu njaboot ak sunuy jur ñu xëy mu seey nii te fi mu nekk nii mënoo xëy xëy amaat ko day metti moo tax daal ñun dañuy lancer appel Macky Sall ak Marème Faye Sall mu dimbali ñu utal ñu place boo xamante ni dañ fay toog di fa nekk di fa liggéey ak sunu matériel yi nga xamante ne si dafa yàqu buñ ñu ci mënee dimbali ñu dimbali ñu ci encore ñu dimbali ñu ci waaw. matériel yi fi làkk boo leen ko naroon xayma valeur bi ñaata lay toll. mënuñu ko xayma parce que man man li ma yàqule dong dong su ma ko xayma woon su ma ko doon calculer rek dina mat 2 million man li ma yàqule kese. ak ak ñeneen ñi tamit li ñu yàqule lépp lépp mënoo ko xayma waaw maanaam li fi yàqu daal dafa bari ba lool bari na lool waaw. métti na trop ñu toog ba 3 heures du matin ñu oo la ne atelier baa ngay tàkk ñun ay auto gendarmerie rek yu ci bëri auto gendarmerie la ñuy liggéey fii nii. Kia Kia Sportage bi Honda ba leen ne 406 yëpp ci biir camp bi la jógee. bon ñu toog 3 heures du matin ñu ne la oto yaa ngi tàkk taxi boo arrêté wala boo taxawal mu ne la non du ma mën a dem parce que couvre feu bi waaw voilà très bien couvre feu bee tax bon il fallait que nga toog ba mu leer nga doon mën a ñëw atelier vraiment bi ñu ñëwee fekk na fekk na oto jàmbur yi yàq te moom moomuñ oto yi ay oto jàmbur lan danañu ko joxoon pour réparation bon il fale que ñu seet vraiment métti na trop si ñun ko métti na trop si ñun waaw léegi ñi borom oto yi est-ce que jotoon ngeen jël kii ak ñoom pour que ñu xam lu xew. non sûrement ñoom ñoom ñu ngi au courant parce que xam nañ li xew fii nii xam nañ li xam at tàkk-tàkk bii nii ku ko gi ku ko ku ko déggul tamit nga ko. waaw ñu ngi ñoom ils sont au courant mu toll léegi noo leen fas yéene oto yi. ah mais xam fu ñuy ak ñoom parce que ñoom xam naa ne peut-être ñoom ñu dawal compréhension te bu ñu dawalee compréhension xam nga ne moo ñu arrange parce que ñun mënuñoo fay oto yi yëpp yàq ni ñu ko fay waaw. comme ni ma doon wax sànq rek comme façon yi dafay faral di am léegi du doo toog weer dégguloo ne marché nangam làkk na bërëb sangam làkk na est-ce que jotul ñu xalaat affaire assurance ak yooyu ndax euh, bu li amee mu mën a am benn solution boo xamante ni dina xaw a wàññi coono yi nit ñi. dëgg la waaye problème assurance bi moom vraiment xam nga doon taxuñ ci woon ko te waxuñ ci woon lu ci jëm quoi looloo tax vraiment lijjanti wu ñu woon assurance pour assurer wu parce que ñun daanaka atelier bi mu atelier menuisier la woon. mais ñun danoo nekkoon ak ñoom suñu matériel yeeg yëpp presque atelier bi demoon nañ ba ñëpp ñun ñëpp benn lan parce que ay nangam personne ñoo fi nekk waaw kenn ku ne fu ne ngay bàyyi bàyyi ko ñëw suñu bu ñuy wàcc suñu matériel yëpp ci seen magasin bi lañ koy dugal ñu boole lépp tëj vraiment suñu matériel amul lenn luñ ci génnee waaw. yow boo danoo xayma sa matériel bi. vraiment parce que oto yi yàqu yëpp ak sama suñu matériel yi ñu dugaloon fii parce que bu ñu amoon dañ koy limité ci 2 millions rek parce que pour mën a lijjanti yenn oto yi ko yenn yenn bagages yi quoi. parce que samay mag seen valeur ëpp na loolu. ëpp na ci oto bi dafa commencé laal oto bu ne da cee commencé laal yi mu yàq seen pare-brise yi mu yàq seen pare-choc te sportage yi nga xamante ne kii a sportage xamante ne ay oto luxe lañ vraiment. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Modou Xabane Gueye nekk électricien euh, man nag dama lu ma xare loolu waaye sant naa yàlla baax a baax a baax ndax dama toog ba 3 heures du matin. ñi woo ma ne ma sama sa atelier mi ngi takk ma xam ne trois heures de matin mënu ma génn dama doon woote ñi may woo ñoom ñëpp kenn mënu cee génn il fallait ma toog ba ba cinq heures de matin ma doog ma doog génn bi ma ñëwee fekk naa vraiment sapeur pompier jaaraama gàcce ngaalaama fexe na ba fay lakk gi mais quand même fekk naa atelier bi yëpp tàkk ba jeex takk waaw bi ma ñëwee fekk naa matériel bi yëpp lakk amul dara lu gën lépp lakk na ba jeex tàkk loolu nag wax dëgg yàlla comme kenn faatuwu ci dégâts matériel la ñu ngi sant yàlla baax a baax a baax di ñaan yàlla nag ku ñu jàppale ndax ay borom kër lañu te atelier bi rek lañu yaakaar nañ ci bàyyi bi leen dëkk dañoo xëy daan suñu doole fii saa yu xëy fi leen toog dañuy xëy si 8 heures ba 19 heures ñu doog a wàcc léegi nag li ñaan nag mooy Macky Sall président de la république ak madame Faye Sall ak maire bi nga xam moo nekk Fass baan mu jàppale nu ndax actuellement fi mu ne noonu suñu atelier bi rek lañu yaakaar bon te li nga yaakaar nag loolu rek moo fa sës donc nag ñu ngi yaakaar mu jàppale nu ak nu mu mën a jàppale ndax nu ma am mën a joxe ji dépense yor suñu fexe yor suñu njaboot gi. ñu ngi sant yàlla baax na ndax kenn deewu ci waaw alhamdulilah rabbil aalamiina ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaan fan gu ànd ak wér.